représentant de la vraiment sourire bi daal moom nañ ko garder ci teew bi nga xamante ne teew nañ ko fii ci Mermoz suñu xarit suñu kilifa Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue tey la def at ci suuf ñu koy ñaanal yàlla yàlla na suufu Tivaouane sedd ci kawam mais tey suñu xol fees na parce que fàttali nañu lu bari ci Cheikh Meng lii waa mu def ñoo ngi koy rafetlu ndax lii mooy coloré ñoo ngi sant tamit bu baax suñu président Seydina Oumar Mbeng ndax tey yaakaar naa ne euh, moom fépp fu nga xamante ne Cheikh tegoon na fa tànkam moom Seydina Oumar teg na fa tànkam kon dañ koy ñaanal liggéey bii nga xamante ne magam tàmbali woon na ko mu yegal ko jàmm ndax Cheikh mom euh, ñepp xam nañ ne euh, Sénégal la doon liggéeyal Sénégal mom mo perte kon tay buñu taxawé fi ci Mermoz di ko fatali lolu dañ ci sante yalla di remercier nak famille Cheikh Seydi abou Aboubacar mbeng yëpp parce que gis nañ ne depuis ba Cheikh démé ñoom kóllëre guñu ñu amoon ak Cheikh yeggali nañ ko matal nañ ko ba mat sëkk. ñi ngi ñi ngi am ñi ngi euh, sante bu baaxa baax. ci ñëw giñ fi ñëw tey di fekkee lii nga xam ne day jëmmal euh, tuddee gi nga xam ne moom la ñu tuddee Cheikh Seydi Aboubacar mbeng terrain boule bi nga xam ne moo nekk fii ci Mermoz nga xam ne moo doon président bi ñu def ko tey ci bés bi nga xamee ni mooy bés bi mu dëddoo e ñu koy rafetlu euh, di ci am euh, du ma wax mbegte waaye di ci am xel bu tooy ndax wax dëgg yàlla bu doon suñu sagoo tey mi ngi nekk ak ñun ba tey waaye yàlla moom lu ko soob lay def kenn la woon na ci ñun ndax euh, suñu doomu ndey la woon suñu xarit la woon suñu àndandoo la woon e mbooloo mi nga xam ne nag tey moom moo moo toog moo fi nekk ci ginnaawam te rakkam jiite ko di Cheikh Sey euh, na Oumar Mbeng euh, doon na mbooloo moo xam ne mbooloo mu mu mu mu mu mu fasu la e ay kilifa yu am solo nekk ci ay nit ñu am pas-pas nekk ci tey dirigeants yi nga xam ne ñoo responsable yi nekk ci mouvement bi yëpp teew nañu mais lu day nii lu koy tuddee Bouladrome bi nga xam ne moom moo doon président

ñu ngi ci taxaw rakkam ju baax ji Seydina Umar mi ngi ci taxaw mbooloo mi nga xam ne moom la fi bàyyi woon te muy ay gor yoo xam ne ñu ngi tënku ci ginnaawam ñu ngi ci taxaw taxawaay bu rafet. mun naa mu ne ma ndax Macky sama xarit la ñun nekkandoo jàngandoo dama bëgg te xam naa am naa ci moom yaakaar ne suñu réew mi dina baax te man réew mi rek ma ñor moom dara ñoru ko lu dul réew mi. avancement réew mi réussite réew mi ni mu réew macha ni ko yàlla mayoon réussir loolu la bëggoon su sañoon njaboot gu ne réussir suñu gis sax boy booy def sabab yow jàngoo nga day lu tax nangam loolu moy jëmale rew kanam su la xoolee yow ki ñu ne ki ka doom dafa fe mu ne ah lu tax waral mu dugg ci maladie universelle bi vraiment teew bi fi teew ronkañ tuuruwaat na ci souvenir yu ñu am ci Cheikh Mbengue mais également am nañ un peu de soulagement biñu gissé mbolo mi top ci ginaawam yépp fas yéene fàttali di feddali kóllëre ci liggéey bi mu amoon bu mu doon def fii au niveau du Sénégal. Cheikh nag nekkoon na nit koo xam ne dañ koo gis am cofeel ci moom ñu miin ko bëgg ko ndax ci koom Cheikh nekkoon na nit ki nga xamante ne amoon na yërmande si ñun jigéen ñi amoon na yërmande ci suñu ci jeunes yi te xam na ne ku ne xam na ni réew jigéen ak jeune bokk na ci li koy développé donc Cheikh euh, nekkoon na koo xamante ne aussi ku bëgg réewam la loolu li koy euh, prouver mooy mouvement bi mu samp muy la patrie d'abord donc mu nekk loo xamante ne mi ngi preuve la buy wane ni amoon na amour ci patrioom ci réewam. il avait les solutions malheureusement lii la yàlla dogal donc ji na ci ñun jikko yi nga xamante ne Cheikh il était honnête il était aussi sincère daf ñu doon wax toujours ne man aw ma lu may jox kenn li ma mën mooy wan leen yoon pour ngeen liggéey parce que ñun liggéey la ñu soxla liggéey la réew mi soxla li ma mën mooy fu ma gis ay offre d'emploi ma jël jeunes yi nga xamante ne am nañ les diplômes qui ils sont adéquats à me placer. Donc il était sincère. Cheikh, il avait donné à la politique son sens propre, pas le sens figuré, nous utilisé. Il avait donné une autre vision de la politique. loolu moo tax ñun groupement de femmes yëpp de ces Assainies Wakam, Yembel, jusqu'en Italie au niveau de Bologne Cheikh am na fa groupement de femmes ma belle-sœur qui ko dirigé. diriger ñëpp ñu ngi ci ginnaawam rakam bi nekk fii nag ñun ñëpp ñu derrière le mouvement La Patrie d'abord parce que ñun mouvement boobu la ñu xam. ñun ñeneen nag nga xam ni yàlla dafa dogal Cheikh nekkoon suñu kilifa ci politique ndax ku ne xam ne da doon politique wax dëgg yalla teew gi ñu teew fii tey ànd ak suñu président et coordonnateur au niveau national et international muy Cheikh Omar Meng wax dëgg yàlla ba fi ñëwee mun naa dafa am lu bari lum fatali fàttali ndax je me rappelle euh, rentrée politique Cheikh Seydi Aboubacar Meng bi ñu defee woon fii ci terrain bi den dend ak euh, maanaam terrain pétanque bii ñu ko tuddee muy vélodrome bi ko tuddee tey kérok ba ñuy wàcc suñu rentrée politique and ak mom le 13. mu naa fi lañ ko fekkoon mu nek ak mbokam yi nga xam tay dañ ko jiitaloon ci club bi defon ko muy sen président ba yalla dogal nak bam fi joggé le 15 juillet tay muy un an ñukoy rendre hommage jël manam velodrome bi tuddee ko ko mu nek nak mbégte ci ñun ñëpp di wax ne encore une fois ci turu mouvement la patrie d'abord ku ne xamné ni Cheikh da doon politique et nous nous sommes ses héritiers politiques et je pense que si on Seydi mouvement la patrie d'abord son héritage politique c'est le mouvement la patrie d'abord mouvement te dogal Cheikh jóge fi ñu yëkkati liggéey boobu ko ci Cheikh Oumar Mbengue mu piloté ambition Cheikh Baye dem son excellence monsieur Macky Sall ak Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue bis Cheikh daan na nous man ñett yi mouvement la patrie d'abord au soir du 30 juillet Nous réélire son excellence monsieur Macky Sall fële que voton oui, mu am ci majorité bu ñu jugee ci maanaam voton bi muy référendum bi dëgmal nañ élection députation au niveau des Parcelles Assainies mi nga xam ne base Cheikh au niveau national même liggéey bu am solo ci appelé son excellence monsieur Macky Sall ci élection députation yi mu tombé le 30 juillet malheureusement il def a la Cheikh jugee fi le 15 juillet 2017 mais le fait fu nitam nek duggu nañ comité électoral bi diko doxal députation yi nga xamné président son excellence monsieur Macky Sall nationale Cheikh ci bu am solo te na sax bañ ci nga encore une fois mën na président Macky son excellence mouvement la patrie d'abord du ko liguey te loolu ñëpp seede nañ ko ñuy wax ne nag tey jóge na fi bàyyi fi mébét bàyyi fi tiis muy mouvement la patrie d'abord ñu jël liggéey boobu nga xam ne moo nekkoon yéenam teg ko ci loxo suñu président Seydina Omar Meng mu ciy nak nag ay buntu yu yaatu ne mébét bi fi Cheikh mujjee muy au soir du 24 février 2019 ñu réélire son excellence monsieur Macky Sall dès le premier tour ñu am une victoire éclatante écrasante et j'en ai sûrement certain que ñi top tey ci ginnaaw délégation bi yëpp ku ci nekk présidente groupement de femmes nga jóge ci secteur bu ñu ñu ngi jóge ba wakam ñu jóge Parcelles Assainies ñi tu vois jóge Grand medine ñi jóge yembal nord yembal sud ñi jóge Malika Montagne ñepp tay mën naa ne daje fii topp ci ginnaaw suñu président Cheikh Omar Mbengue pour féddali kóllëre Cheikh Seydi Aboubacar meng bi nga xamné ne nako na ak wa Mermoz Pétanque Club mu nekk nak la nga xamné tay mbékté mbégte la ci ñun encore une fois ñukoy ñaanal famu teud tëdd ci suufu xalxus yàlla na yërmande suñu borom téggu ci kawam. daw si waxtu wi si la fi jóge ñun ñëpp ñu koy ñaanal yàlla yal na yàlla xare ko àjjana mouvement boobu nag mën naa wax ne daf ko survivre ndax nit di liggéey dara sax jóge fi mu naax saay mais dafa ànd ak ay góor ak ay jigéen ay góor yu baax yu mu doon wax naan yéeneem moo doon ñu ànd juróom fukki at fu ñu jàkkaarlooyee kenn du sëgg mu gën fee neex sax ñu ànd ba yàlla xëy na boole leen ñoom ñëpp dugal leen biir aljana tey jiitu na Nous ñoom ñoo takku ñu di bi nga fi di 15 juillet 2018 daal di coïncider un an de xamante si association pétanque club bu Mermoz daal di def jëf bu rafet décidé di bolodrome bu Mermoz bi ñu le président

daal di ñëw teewe bés bi ñu ci sante xaritam Mboor nak tay ji mom mo nek à la tête de du du pétanque club de Mermoz ak ñi bok si association bi yépp geste bu rafet bi nga xam def nañ ko ñun amuñu sen fay Mermoz nak sumay may fàttaliku 1976 la fi ñew dëkk ci ba 1985 mais bu fekkente ni Cheikh dañu tok bo waxtu wi ñu jël di Mermoz dafa jaar jaar bobu mu fi am biñ fi joggé tamit Mermoz daf ko jël def ko ci bir xolam am fi ay xarit ay mbokk relation yo xamanteni dafa continuer et surtout bu mu pour quartier bi pour commune Mermoz Sacré-Cœur ba États-Unis projet wu ay citoyens nous daal réunir dans un cadre d'un mouvement citoyen pour daal di jéem a yootu maire bi seet nu ñu commune bi loolu doon rek acte si li mu liggéey politique engagement politique engagement citoyen auprès des populations ñëpp xam nañ ko loolu moo waral liggéeyam daal génn Mermoz ba fu du Sénégal nous gis foofu lu mu fa def am ay nit ñoo xamante ni dañu ànd ndox le di liggéey mouvement la partie d'abord nous tey remercier vraiment mbooloo bi nga xamante ni ñoom ñoo def la déplacement muy imam ja mi nga xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci Parcelles Assainies muy kilifa goo xamante ni lépp lu cheikh nekkoon daf ci daan taxaw wane ci pas-pasam ak mottali waloore boo xamante ni boobu ba léegi mu ngi koy dox. di remercier président groupement de femmes yi ak mbooloo yi nga xamante ni ñoom ñëpp jóge nañu Parcelles Assainies jóge nañu Wakaam jóge nañu Yëmbal jóge nañu pikin jóge nañu fu nekk fii ci Dakar. bu fekkoon sax dafa nekk événement boo xam ne dañu ko waajal mouvement bi décidé ko organiser ci boppam xëy na kon Sénégal fu nekk nit dana fa jóge si wàllu wi nga xamante ni nag waxtu wi tey ji ñun ñu ngi ciy jéem a dox di ko jéem a wuutu ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ni objectif bi ñu ci am mooy la mu yéene woon ñu jéem ko mottali ndax ñu ngi jëm ci événement yoo xamante ni Cheikh daf ci ne daf ci taxaw taxawaay bu am solo pour soutenir le président Macky Sall ñu falat ko au soir du premier tour loolu moo waral. si banlieue bi muy parcelle muy Pikine muy Guédiawaye muy Malika ba masar, Massar ba Diass ba Thiès am sax ay programme yoo xamante ni ñu ngi ko dëkkmal boori Mbacké ak boori Louga loolu muy liggéey boo xamante ni tey jii mouvement La Patrie d'abord mu ngi koy def pour gën a yokk yaatuwaayu liggéey bi nga ni Cheikh teg fan na fi di Mermoz dafa mermos Mermoz boo xamante ni waxoon naa ko sànq Cheikh daf ko def si biir xolam ñu dëkkmal fi liggéey bu rëy fas des ñamu mu jëflanteloon ñu fexé ba séti leen waxtaan ak ñom ngir li nga xamanteni geste bi qui Doom bi def nañ ko té qui association ak ay mouvement ak ay goor ak ñu ngi fi am yéene mottali lolu ñu ñom ba fi fait ñun ñep ñu daal ci am ndam lolu nak la dox vraiment famille bi contane nañu xarit yi contane nañu mouvement La parti d'abord ci bopam xolam et par ma voix ñu ngi vraiment. Mbor ak association Bolo Domb Mermoz bi yëpp di remercier wa Bolo Domb Mermoz di remercier Wa Mermoz yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan Yalla bu soobee Yalla fa mu tëdd sa barsax di noflaayam salaamaaleykum wa rahmatullah